dikkati na coow la ca kaw la tribune yéene kaay naan man sori yoon ak luy jeex ndax procureur la mu xuppoon ne dana jàpp képp ko xam ni taxee nga ca jàpp ji day ma nga mel ni tulleeg maale ca diwaanu kaw la googee yéene bi day média bi naan man tegal sa baaraam ma xamal la ni fukk ak benn ci doomu aadama jàpp nañ leen ci kaw la ndangaan googee ñaar ñoo xam ne ne ñu ci mbir ma la ñu bokkoon daal dina ñuy daw diggante Gambie ak Mali libération naan koon ka nga xam ne moo fa ñu dencoon waajoo jee daal dinañ koy jàpp jàppit ka nga xam ni ba xupp président Macky Sall jàpp nañ ko waaye ki nga xam ni moo sabab mbir ma bokk ci këru diine moom ci boppam ma nga Gàmbi Interpol la ñu ko boolee turbine yéen kaay naan man ca diiwaanu Kaolack jàpp gi daal ma nga mel ni tulleeg màlle ci mbir mi yéen kaayub dee média bi naan man terewul ni collecte parrainage bi ma nga mel ni sabaruk ñooñu ci gëm sa bopp xale yi bugaan gay dan yi ña nga rangoo seeni t-shirt yore seeni pancarte yore seeni woto yoo xam ne daanaka parrainage bi sax lañ ca daal di def di rungum rungum mi nag biir Sénégal yéen kaay bi naan man daanaka waa gëm sa bopp ñoo daal attirer attention askan wi jëmale nag ci wàllu parrainage bi le témoin yéene kaay ne ko déet wax ji kay moom moo di gëm sa bopp moo nekk ci combaxtaluk mbir mi ci opération de terrain yi nga xam ne mi ngi am ngir wàllu parrainage bi l'évidence yéene kaay naan kon xaw ma ku leen déedee waaye seen stratégie bi daal ma ngay fay dëgg gars yi dajale nañu ba marday taali ca diiwaanu Touba ñu ne déeta waaye Thiès moom ñu daal di koy ratissé te laataa lool diggante kii du fa nga xam ni moom la laloo waa gëm sa bopp dajale woon nañ fa daanaka ñaari téeméeri junni ciy parrainage ne nag moom gars yi nee ñu seen mbébét moom moo di lu ëpp million ci parrainage yoo xam ne daañu ko dajaleel gëm sa bopp ak Bougane Gueye Dany yéenekaay bi ne lii kay jar na samp laaj ba tey lan moo tax nag équipe gëm sa bopp yi dong la ñuy gis ci terrain bi ci dajaleem parrainage bi lan moo xew lan moo tax nag collecte parrainage bi yitteel Bougane Gueye Dany waaye tam yitteel ak équipe am ne la watunu guddi ne la watunu bëccëg ña ngay rungum rungum mi nag di wëri parrainage fuñ ko mënee amee te loolee ma ngay fay di def effet ndax seeni parrainage maar day taali sa kan na bari na am nañ woow direction générale des élections daal daal ñu nay gëmb tëxlu ci li mu ne du jébbal Ousmane Sonko ay ko acca l'info yéen kaay ma moo taxit Alioune Tine daal yekk kete cendee la faal xam le nag directeur général li mu def nii ware na ak PTM te koon warta jiite bërëb boobee nga Sénat mi nga xam ne mooy tëgg ne leen Ousmane Sonko moom jébbal leen ko ay fiche am ni déedee ko ndax yoon nangu ko loolee nag wane na ni directeur bi mënta jiite DGE tribune yéen kaay ne ko ma cendee la faal ne nee nañ na able waaye maître Sidiki Kaba it nee nañ mënta jiite ay élection ci réew mi ndax na ñaar ñii élection yuñ tëgg élection la yoo xam ni day lu ne mën na caa am ndax Sénégal li ñu bëgg saa si tembe mooy élection yoo xam ne ñëpp ci bokk waaye tam bëgg nañ élection yoo xam ne day leer nañ werante daal du ca am l'enquête quotidien naan man en tout cas xëccoo bi diggante ministère de l'intérieur ak Ousmane Sonko tey la waalo gën ay aay l'observateur naan man ñàkk jox Ousmane Sonko ay ficham daal dinay andi ab débat ci réew mi le témoin yéene kaay ci boppam DGE daf ne ko doxal foo wi rax ci dool yi nag nekkee ci résistance ba wal joojo njaay Alioune Tine ak expert électoral bii di njaga si laa nee ñu DGE nekkoo ci dëgg laas naan en tout cas DGE fa mu nekkoon jógu fa nee na Ousmane Sonko na duggaat ci liste électorale bi laataa ñu koy jébbal lenn le soleil yéene kaay naan man boobu président Macky Sall ma ngay lancé ay travaux zone économique spéciale la bëggal jas tribune yéene kaay naan man moom premier ministre Amadou Ba daal dinay dalloo forage boo xam ne fandan la daal di nekk moom Maguette seen maire bu Malicounda Macounda daal di tàqale ak mar ña xam ne ñoo nekk ca fàndaan googee yéene kaayub dee média bi naan man gannaaw taaxum Sinthiou Mbadaan pël yi xam ne amoon nañ ko 2018 fanweeri million ak juróom defar nañ ko municipalité bi nag moo def lépp fexe ba xëccaat ndox mi ci juróom fukk ak juróom ci million daanaka juróom ñeen fukki million ñu daal di koy def ngir tàqale Malicounda ak dëkk dëkkaan yi ci mar lu toll ci juróomi téeméeri million ñu def ko ci SDE ngir fa wolof falox séeréer sali aérodrome sali médine Malicounda Carrefour Mbaling Warang bi naan man ñu dalal fa premier ministre Amadou Ba mu daal di dalloo forage boobee yéen a kaayub des bi naan man demal il à Morphil ak Moussa Sow mi nga xam ne daanaka Abdoulaye Wade xamle woon na ko ci jamonoom moom président Macky salla ñëw dippee ko Moussa Sow walal de moom mi jiite Puma président Macky Sall mën a sukkandiku ci moom ci diiwaanu Podor ndax fokki forage ak jàppale waa Podor it Puma ma nga ca tribune yéen a kaay naan man waaye ak lu mën a am pôle bu communication bu gëm sa bopp nee ñu maître Sidiki Kaba ak Thiendella Fall moom nañ leen abal rek fa yàllaahu élection moom ñu koo def fii ci réewum Sénégal le soleil yéene kaay naan maan président Macky Sall booba ma nga bëgg a suqali jas tribune yéene kaay naan kon Moussa Sarr njiital etir ma ngay woo Mouhamad Boun Abdallah Dionne niki noonu neen yeneen responsable yi ñu daal di del si seen xel na xam le ni coow li coow li mooy dogalu président Macky Sall lan wara a sukkandiku waaye tam sukkandiku ci tabb gi nga xam ne tabbal na leen ko Amadou Ba ngir mën a jàll daal di wéyal nag plan Sénégal émergent goo xam ne mën na suqali Sénégal à tout moment le soleil yéene kaay naan maan Sénégal ci boppam téeméeri milliards milliards daal dina koy am diggante BOAD ak BIDC talaata ji lañ ko xaatim ca Lomé ñetti convention bu financement yoo xam ne war na soxal ñu daal di prolonger TER bi ba aéroport international Blaise Diagne war a soxal ñu daal di yeesalaat Diamniadio waaye tam VDN 3 bi ñu daal di koy talal bandar géej ministre de l'économie du plan ak coopération bi di du Ka Le Soleil naan maan moo xaatim lu ni mel liggéey ba war a door daataat diggante Tiwaawoon Mexe ci autoroute à péage bi waaye tam diggante Dakar Tiwaawoon saint bi boobu vox populi di ma xamal ne léegi leer na Sénégal góor ñi ci boppam ñoo ëpp jigéen ñi lu ëpp fukki million ak juróom-ñett ñoo am ci doomu aadama fii ci réewum Sénégal waaye lu ëpp xaaj ba léegi ay góor lañu te li ëpp ci askan wi ñi ngi diggante Ndakaaru Thiès ak Diourbel Mbàkke moom léegi mooy département bi nga xam ni moo ëpp ko dëkkee yéen kaay bi naan man am na ñoo xam ni moom nee ñu recensé wuñ leen te tàmbali nañoo ñaxtu daar daar di xam le ni recensement gi am na lu ca taqee 24 heures yéen kaay naan man Papito Kara faatu na ci géej gi ngir bëgg dem Espagne turbine yéen kaay waaye nan kon laaj bi jara samp moom moo di diggante maître Abdoulaye Wade ba ci président Macky ay alternance yoo xam ne ay soppi la sénégalais yi nag defoon ko ngir ëllëg gu ñoŋ ngir yaakaar goo xam ne daal dinay am loole lan la soppi ci dunduk sénégalais yi yaakaar gaa ngi fi ba tey wala yànqeeku na sénégalais yi ndax gis nañ seen bopp ci alternance yooyee sénégalais yi ndax lan leen digoon boobaak léegi ña ngi cey teg seen i gën ndax sénégal ñoŋ na soppeeku na ci anam wi gën ndax ñoom ndaw ñi ci boppam nga xam ne xamle nañ ne fii ci sénégal bi diggante fukk ak jàpp